saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa arbitre ba Sitor Ndour manu raje woon ci bopp CNG manu raje woon ci structure boobee di CNG moom Sitor Ndour la sunu làmb xëy dalal mu wax ay kàddoom jëmale ko ci Alioune Sarr Sitor Ndour lu mu yekkul Alioune Sarr ci bile journal da koo fàtte moom dafa xëy dëggal ay kàddu Yaxya Jóob Yékini xam le ne Alioune Sarr mënatul te dafa war a bàyyi Alioune bu démissionné wul wala ñu dàq ko làmb ji dootul avancé bopp lépp lépp lu ñuy def ci CNG bi moom kott moo bëgg a defal boppam il veut tout faire à ci juróomi junni junniy nit ñu ngi réclamer départ am 5000 personnes réclament son départ moom Alioune Sarr day firndeel ne làmb làmb ji doyal nañu si moom ña a jóge ci làmb ji tekki seeni ngemb mooy Eumeu Sène ak Gris Bordeaux wax ji ni mel nag Lac de moo ko wax du samay kàddu moom Lac de moo xam le ne Gris ak Eumeu Sène bu ñu fi jógewut danañ leen humilier bu ñu tekkiwut seen ngemb bàyyi làmb ji lu ñaaw moo leen ciy fekk ñoom ñaar bu ñu bàyyiwut ay gone yu ndaw ñoo leen fii duma ay dumay bëccëg ñan ñooy say adversaire mu ne diggante Bombardier ak Eumeu Sène bu fekkee ne officiel agut Eumeu Sène dama jël fay ma sama bor bu dee officiel na nag nañu bi jàpp ne xamagut fan lay féete ci diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux mooy Tapha Gueye la diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye 2 ana kan a féete laaj boobee le journal ba xëy sam ndax Tapha Gueye day bàyyi Balla Gaye 2 jàpp ci Gris Bordeaux mi mu bokkal faas kenn xamagul ndax Tapha day continuer di jàppale Balla Gaye 2 kenn xamagul ndax Moustapha Gueye dafa fas yéene ne neutre ci bile combat kenn xamagul en tout am ba des mooy Tapha mooy choisir que choisir combat ba war dox ci diggante Tigre Junior ak Boy Jaxaw mooy njiital Jamtan Production Adama Sané moo taxawal bile combat Tigre Junior bu Lansar ak Boy Jaxaw bu Samba Diaw bile combat la journal ba xamle mooy diggante Thiès ak Lansar la combat bu nar neex la nar doon ndax kenn xamee leen tirise bile combat espoir combat du ko gaaw a dàq bile